iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin bismillahir rahmanir rahim alif laam miim zalikal kitaabu laa rayb fiihi hudan lil muttaqiin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك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 آتيني الكتاب آتيني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصيني بالصلاة وأوصيني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتقى يتخذ من ولد سبحانه إذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم آه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 غفرانك ربنا وإليك المصير من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار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 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما arsalnaka illa rahmatan lil alamin qul innama yuha ilayya annama ilahukum annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون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 tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghni anhu maaluhu wa ma kasab sayasla naaran zaata lahab wa muratuhu hammalatul hatab fi jiidihaa hablum min masad suuratul ikhlaasi makkiya bismillahi irrahmani irrahim qul huwa allahu ahadu allahu samadu lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad suratul falaq makkiya bismillahi irrahmani irrahim qul a'uuzu bi rabbil falaq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 sadaqallahul azim